Amen. すいません。 Allah. Shri Shri Shri Shri Shri Shri Shri Shri Shri Shri Shri xanaa mu génne muuru koor la koor bi mooy yëpp ko asamaan lépp maanaam ko war a denc booro kon loolu lu am solo boo leen nag néew dina tax ñu ñàkk lu bàyyi ndax xiif ak mar dafa nekk lu bët ba doo ko def dafa war a nekk ngir laaj dafa def dafa woor dañ ko waaj génne ko balaa ngay julli si boo julli si loolu pare dellu si dellu si nga génne ko am nga sa wàll bu kon bu ñu continué bu baax a baax leneen li ci tegu muy suñu diggante ak suñu bopp parce que boo gisee borom bi subhanahu wa taala di farataal ay wéeru koor di sunnaal sunna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam joxe waxtu bii ñu nekk muy sunna bu diini wala gi maanaam maanaam def ak nàkk wala def maanaam ñu ci jumaa bi yàlla la borom subhanahu wa taala am na ci loolu ñu may ñu bëgg gàtt bi yàlla daal ñu bëgg gàtt bi yàlla daal te ku nekk yéene ci borom nga yéene sa bopp ndax bi ngay jaamoo yàlla def ko boole woon sa morom bi nga kàbbalee rek nga bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin nga ni iyyaka na'budu loolu laa ko leneen li nga ko doon wax yàlla na tax si borom pour mu xottaa nga xot ko ñaar bi nga desi leen ñaar yàlla ci bi ñu xaar julli bi def indi damit ñëpp nga fokk ñëw ñëw yàlla mun laa nangu julli bi mun loo julli yow yàlla kon boobee yàlla mi lay jàngal na nga seetal sa xol sa diggante sa julli foog julli waxoo gi nga diggante waxoo gi nga bokkal waxoo gi nga bokkal liggéey déet beneen bi ñu ne xam ko xamoo bi nga yéenee sa bopp nga yéenee ko keneen loolu moo ñu war loolu moo tax borom subhanahu wa taala mu ne dama kontaan ci yéen koor ndax maanaam soo leen ko jooxe ba mu baax ngeen mën a am tax wallahi moo lay leneen ci des soo ko xalaatee jiital delluwaat ci njaboot yi néew leen ko maanaam di leen yar xam na fi passé ñu yàggul gàcce la yow na ci yoonu sax jullit mu laxas tax yére am bu dëgër bu ci alal jaar di ko yàq di ko jël di ko yóbbu loolu warul fenn sax ci réew mi ñu dund ndax naar yow ñoo xam ne dañuy wóor seen bopp ay jullit lañ Abdoulaye nag dafa am loo wax mu des tamit jooy ko su ma saa këcc loolu ko dunde bu fekkee ne lax ñax mu wow mu lakkaari ñax mu nooy yàlla mu ñu dëkk rek lu ñuy kay am na bu bu la ay rek la daal bu bu doy li ma ko bu wax mooy maanaam nit suy wut am na loolu bu baax suy wut xarit da ngay wut bu baax boo xam ne nii ragal na yàlla kon ngir man ak ñi ma mën a wax ak la xoolaat te bon nañu ki mooy ne wax nit ki waaw woon wax rek nekk ci dégg nañu miinaa suñu bopp yàlla na loolu lu dul loolu yàlla moom mu fen fen nag dina fen ci wax waaye dina soo buggee lekk lu la yomboon lu la yomboon ci loolu yàlla ngi ci fen loo gis yàlla résultat loo gis ñu résultat waaye daa xëy na sàmm bi seen dëkk ci gën yow ma am lu ma neex ma am ma daal ma am am dara ci am lu mu jub daal da ngay liggéey da da ngay yaram waaye da ngay am maanaam ñooy ne ñu doon def lu baax déw gerte gerte daal daal ma wax ko teg boo da ngay wuti gerte yàlla moo def maanaam ñu bee woon ñebe wala leneen boo waaw ñu ngi nax suñu bopp li nekk ci loxo borom subhanahu wa taala ëllëg fu xatul gën ñu ko ñaar ko dañu koy ñaar neexal borom subhanahu yàgg naa wax ne réew mi ñu delloo waa mu ci ñu ci man su ñu ñu jàpp waaye bu ñu koy gëstu ci ñu man su xam ne am problème yàlla ni yàlla dina jàpp yàlla ni yàlla boole yàlla su wasu ndax yàlla fàtte yàlla maa ngi seetlu tamit ñi ma ci ci ak mel ñu ci yor bi ci ngi liggéey bi xam alhamdulillah rabbil alamin ko ni ngeen ko gisee muy nii du wax ñëpp xotali euh, jullit yi euh, defe naa lii mu xool xam na ni ñoo ngi liggéey commission bi ñu taxaw di liggéey ba yéen bi liggéey tamit xam leen poos ni ngir maa xam ne leen wàcc néew yàlla bi ndax mooy fu mu wane ko ci alhamdulillah gannaaw téere yàlla bi ñu xam moo nekk suñu poos suñu diggante ak borom subhanahu wa taala ak rasulillah sallallahu wa sallam ala asalaamaaleykum tunga ni du teew ñuy nataal ñoo ko gisandooti yéen ci teg seen bët xam nga ni lépp luy information actualité Patte d'Oie TV dañu ko téye suñuy loxo kon gaaw leen sunu ay vidéo partagé te abonné ci sunu seen YouTube ngir lu ñu dugal ngeen teel cee mën jot ak Patte d'Oie TV rek mooy seen bi xew ci jamono Thank you.